seet yeneen feebar de uh-huh. waaye comme euh, seetlu façon feebar yi le uh-huh. ak reporting ba pare loo gis uh-huh. nga report ñu mun a xam euh, ne lii am na wala amul Gambia sax ak Sénégal dañ doon dem pour jéem am euh, certificate pour jéem free from this disease waaye xam nga all of mu ñëwaat because Mali boo ko seetloo Mali feebar bi mu fa te nag yi nag oo jur gi dañoo dugga di génn waaw soo Sénégal itam jege nañ ñu lool mm-hmm. so ñun biñ gisee feebar bi mm-hmm. Sénégal itam gis nañ ko gis nañ ko soo léegi liñ mën a def rek mm-hmm. mooy vacciner li fi ni ah, jur gi yëpp pour bugg a fan lañ njëkk a gisee feebar bi nii ci biir réew mi ci ban ko waaw feebar bi ñu ko njëkkoon a gisee eh, tund ñaamina dankunku Euh, Njamina Dankunku lañ ko lañ jëlee samples. Mhm. about ñu jël 19 samples. out of those 19 samples. 11 mhm. samples yëpp dañ zero positive waaye zero positive minute ne um, feebar bii la de. Mhm. mun nga mun nañ la mun nañ laa piqûre pour fànq feebar. yaa ngi amee antibodies yi. waaye léegi ñu ne. nañ seetaat ndax. bi jàngoro bi def euh, feebar bi uh-huh. moo moo moo mooy xew uh-huh. so biñ biñ ko confirmé ñu confirmé ne CBPP la ah. so moo tax léegi vaccination bi uh-huh. dañ bëgg a commencé euh, CRR ak URR parce que ñaari regions yi dañ dañ am they important nag yu bari yu ah, UR uh-huh. oh, URR uh-huh. dañ dee ñëw su fekkee ne dugga nañ si noor bi uh-huh. dañ dee ñëw boori ñaamina na da ngaa gis ne population bi boori ñaamina dankunku dafaa gën a bari so loolu mooy problème bi migration is one big problem bu nga xam ne pharmacie dina ñëw si war a dimbale balaa ñoo jeexal vaccination bi. bu loolu weesoo yi ñu daal di ñëw nag ci fànna bi ngeen tàmmul seen bopp di suma xool fañ leen dee jàngalee seen leetari xool yi ñu ànd nag ak Ramatulaay Jaalo si leetari tey bi. jërëjëf maama leetar bi ñu fi am tey moom mu jógee ko si benn jigéen boo xam ne mu ngi sëy ak jëkkëram jigéen bi mu ne moom jëkkëram dafa amoon beneen jabar taagoo moom soog a ak moom mu ne ah, si biir ah, si biir juróom-benni at bii nii yàlla may na leen fa benn doom boo xam ne mu ngi am ñaari at te fu mu nekk nii yàlla mu ngi ko wërsagal omba mu ngi omba juróom-benni weer mu ne waaye nag jëkkëram fu mu fitna bi toll na foo xam ne jëkkëram du ko joxe dépense mari su ko joxee tey dépense dafa mel ni like ëllëg du ko ko jox gannaaw ëllëg du ko ko jox waaye su ko doon jox hundred dalasi ko jox fifty dalasi doon fifty dalasi la ko doon jox la ko dee jox mu ne mu soona lool si sëy mu ne jëkkëram fitna dee def ba pare dafa toog ba nga xam ne nit ñi tëdd nañ ay ah, fukki waxtoo ñaar si guddi si la moo jóg dem doxi nag ba bóor set mu ne bu ñëwee bu ko waxee ne ah nijaay foo demoon mu ne ay dóor yu métti la ko si dee tegal te mu ne mu ngi biir biir juróom benn weer mu ne ah, mu dem si yaayi booy bi mu expliqué ko booy bi waaye yaayi booy bi dafa màgget trop mu ne yaayi booy bi lum ko wax mooy ne ki suma ko waxale sax duma duma deglu parce man amatuma doole moko meuna tek wax ko mune lu ko neex lu la de def lima la ñaan rek moy nga tok nga muy sa sebi mune mu dem si mom yaayam ak papaam ñi nga xamne ci si la gay di mu wax len problème bu mo dundé ci biir këram bi waye mune ba légui yaayam ak papaam tam ne ko sutura jigen dal ak taram moy sey togal nga muñ lu la fa fekk rek yalla dina ñëw benn bis mune waye waaye bi bari na métti na si biir néegam bi mu ne benn jigéen boo xam ne maire la moom it mu ngi luwaas si kër bi moo luwaas mu ne maire bi xool ko ne ko ayoo ni nga dundee ak sa jikaar neexut ma daw na yaram mu ne ko léegi nag la demal si benn ah, askan benn góor bu baax koo xam ne ah, sëriñ la naa dem foofu noonu mu seetal la lan mooy problème bi sa diggante si jikkaar mu ne waaye bu mu demee foofu balaa mu doon dem foofu noonu moom dem na si xariti booy bi sax expliqué la waaye booy bi suñ ko waxalee daal lu ko neex rek loolu la de def mu ne maire bi daal dem si sëriñ bi nii mu ne sëriñ bi sëriñ bi ne ko ah góor bi jigéen bi mu bàyyi woon kooku moo jóg daal bugg a tas siyam bi nii mu am ak ndaw si mu ne waaye moom gëmul yëfi sëriñ sax waaye li ko métti si siyam bi mooy ne saa su ne rek su waxtaanee ak jikaram jëna na sax guru sax tuubal ko pour mu baalal ko a ah, fekkee ne def na dara loo xam ne naka su du noonu la mu ne jëkkëram lu ko si tegal mooy dóor gu métti mu ne ragal na balaa biiram bi di yaaxu si néegi siyam bi nii parce que jëkkëram léegi fitna guddi fitna bëccëg fitna suba mu ne moom daal fitna la moo dundee mu ne léegi nag balaa dem si maamam bi nga xam ne moo ko yaroon mu paak dem foofu noonu ak doomam bu ndaw bi ndax balaa biiram bi di yaaw parce que dóori métti na mu ne mu waxtaan ak askan bi ñu seet la lañ ko xelal. jërëjëf Ramou mbokk yi ñu daal di dem naka génn ànd ak Xoja Géey bi nga xam ne moo doxantu woon naka dem ba Serekunda isil ñu tontu fii si programme bi. man de li ma koy digal mooy kilifa ndaw si ndeke mu ngi dunda yaay ma papaam ah, sa doom fu mu nekk bàyyi war naa ñëw wéree fa doomam ba xam si lan la nekk du dëgg waaye suñ la dóoralee ba mu dee ñu ñëw tegal ñu ñoo ñoom ku yuuxu nit ñi dinañ la yuuxu rek waaye yow doo ko fàtte ba jeex li ma ko digal mooy six months yi nga xam ne dem na ba biir ko ba euh, diis nii mu traay ñaanlu liñ ko wax ñaanlu tam am na waaye doom ji bu juddoo daal man xam naa dina baax dina doon buur dinañ ko sumil daal daal ndax amu doom booy jur ñaqalu la ko mu juddu coonawloo ci mu juddu baax loolu amul il faut sa yaay sonn ñu ne yaayam de dafa sonnoon dinañ dóor dinañ watat dinañ kiik man daj naa loolu yëpp te tey maa ngi nii alhamdulilah rabbil alamin li ma koo xamal daal mooy na dem kër ma ma waxtaan ak maamam maire ñoom mun nañ ci ñu lu bëri suñ ñëwee daal di ko digal ne ah, su ma set bi dee nangam a nangam kanaa nga wàññi dóor yi sa ka jigéen ju uma dafa gaaw a lool soo laalee rek laal nga doon loolu de foofu rek moo ma jaaxal waaye su fekkoon moom rek ak jëmmi kesem ma ne ko toogal muy dóor rek di dóor rek bu yàggee dina bàyyi du noonu kam gisoon noonu daf ko bàyyoon te la ko fa génnewoon kenn xamoo xam nga ko dem na léegi xelam mu ne ci kooku la nekk ndax dëgg waaw kooku su fekkee ne daf ko wax maa ngi ñëwit lam fa bàyyiwoon moom la fee fekkas ni fu mu ne nii jëkkër bi boog daf ko bëggut moo tax soo gisee mu def di ko dóor rek bëggu ko te mu ngi moom mu ngi biir loolu ooru jigéen ku biir pour nga dóor ko bool bu set loolu baaxul ba pare dafa joxe problème si doom doom nekk si biir ah bente na jàpp yàlla rek mu ñibbi su fekkee na mënut a toog mu ñibbi parce que jëkkee si boppam wax na ko léegi dama dama la bëggoon waaye léegi buggaatuma la na ñibbi si kër ndeyam ak baayam lu noonu loolu rek mooy wax tey faratal comme nag dem na ba mu ko teg na xar boobu léegi de li ma ko mun a sant man ak li ma koy ñaan mooy ne sëy neexul na muñ te bu dem si ay kilifa yoo xam ne ne xaj naa am na yaakaar ne ñooñu am nañ relation ak jëkkëram mu dem si ñooñu joytu leen problème am ba seet ndax ñooñu itam seen dawaar suñ ko si defee ndax yàlla dina si mën a def saafara parce que diggante affaire yi sëy nekkul ne tey mu neex rek ëllëg mu naqari mu naqari rek nga ne da nga see génn foog nga muñ jàpp si àlla comme li ko maamam wax.